ginnaaw Louga Kaffrine ak Ziguinchor forum civil ci seen njiit Birahim Seck ñoom day ñu ngi woon diwaanu Bambey ngir dajale Bambey njaareem ba ci Mbàkke ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllam impôt daal di leen di tàggat. daal yu jóge ci ñetti commune commune de Bambey commune de Diourbel ak commune de Mbàkke li ko waral nag moo di ne dañoo def constane ne bi ñu defee évaluation que commission de fiscalité locale yi nga xam ne met nañ ko am met taxawal nañ ko jotuñu am formation bi tax ñuy wax. am na si ñoo xam ne sax daanaka bi ñu leen installé nañ gën a revenir forum civil ne comme impo local dafa nekk loo xam ne lu am solo la nañ commencé d'abord xamal membre yi lan mooy seen cër lan mooy lan mooy seen wareef ak lan mooy seen devoir yi nga xam ne moom la leen loi bi imposé mu article 308 ak article 309 du code général des impôts. moom mi sax ñu ngi xam le ne tàggat boobulee dañ koy wéyal rek ci li nga xam ne moom lañ tuddee recouvrement ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngu seen xel gën cee màcc. élargir formation bi mu bañ a yem rek ci impôt bâti impôt non patrimoine non bâti mais jëm ko élargir également ci yeneen type d' yi bu ci génnee liñ ñu ci xalaat liñ ñu ci xaar mooy def une évaluation évaluation bi nag moo di ne euh, def nañ formation ban njëriñ la am plan d' yi nga xam ne dinañ ko soumettre fan nañ ci toll je pense que da nekk liggéey boo xam ne. forum civil dina ko def ànd ci ak ñi nga xam ne ñoo ko teewal Bambey euh, Diourbel ak ak Mbacké ñoom ñii le sax la ñu xam ne rek moom moo di koppar gi nga xam ne njiital gox-goxaat yi dañ koy dajale askan wi dañoo war a xam fan lañ koy dugal ngir yombal seen liggéey. forum civil rek warul Sénégal daal ne population bi kaay leen fay impôt naam war nañ ko def mais li ci gën am solo mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy gere alalu réew mi mu nekk les maires ak ñi nga xam ne ñëpp da ngeen dénk alal réew dañoo war a def bu sag bu bu at bi jeexee ñu ñëw ne kat lii ngeen ñu nattaloon ci xaalis seen conseil municipaux yi ngeen ñu nattaloon ci xaalis lii lañ ci dépensé lii moo ci des wala lii des si donc li ñu wax redevabilité maanaam tant que redevabilité boobu amul ba nga xam ne askan wi dañ xam ne seen xaalis dugal ko fi ñu ko war a dugal fay impôt du nekk loo xam ne lu yomb la. njiital forum civil bu Bambey Babacar Diouf moom day mu ngay gën a ñaax. ñañ fa doon tàggat ngir bu ñu demee mën a. lawal mbir ma seeni gox